lu sëriñ bi bëgg rek ndax bu yàggut at yu néew amoon na fi dañ ko dindiwaat am na fi ñaar am ñikki na fi am ñu dindi ko baatoo ko fi defoon baat dindiwaat ko baat defar ko fi baat dindiwaat ko ndax Cheikh Saliou Mbacké ci liggéeyam bu njëkk ba amoon na ci liggéey bu mujj moo ko dindiwaat loolu nag la tax ñu dindiwoon ko ñoom ñoo ko xam ci liggéey bu mujj bi itam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 ba ca topp mooy sëriñ ba nugg di sëñ Ibra Xujja moom it gisee njiite pëstéef ja ba mu ca def ba ca def mooy sëriñ si di jenn pour sëriñ naar jenn mooy gis ngeen diggee ba mooy saal bi nga xam ne mën naa am cérémonie officielle bi ci jëmmi jamono xëy na du ñàkk ñu di ko fa defee ba ca dolli mooy eh, waa kër sëñ Aliou Diouf Lambaye ndax ñoom ko xam ne ne ci ñi sanc yoonu murid jàkka yi ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo ñu di ko liggéey fii ci kër Sëñ Tuubaa ji itam sëñ Mour Ablaye Fall Ndar moom moom la ma sëñ bi doomam euh, euh, sëñ Mour Ablaye Fall ci boppam moom la ko sëñ bi sant man mii la yónni woon ma yóbbu palaam ba ci moom yàlla def na sax ca laa ko mu jigi sax ndax tegaatu ci ñaari weer tàmbali liggéey bi far yàlla doo suñ borom jële bakkanam ci biir liggéey kon moom itam euh, laq na ngërëmu Sëñ Tuubaa ndax ab Baye Fall bu dee liggéey Sëñ Tuubaa ba bakkanam def ca kon kooku loolu seeram doy na dee fële ci université ba it sëriñ am di xadi li jëm ci lépp mooy miiraat ga moom la ko sëriñ bi sant man mii la yónni woon ci moom ma dem wax ko ko ba liggéey ku fa dem xam ne moom itam di ko Cheikh Mawdo mu taxaa di seere ci ko seefam bu maam del si wartoon du soppi du soppi aw la ci biir liggéey ba itam nag sëriñ bi defar loo na plan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 ba mu ko ba mu ko bëggee rek ci la ko suñu borom doxal ndax euh, Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne Sëñ Tuubaa du santaane mukk lu dul am te duma sant mukki du fi jub sëriñ bu mag bi gaa yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegsi na fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bés bu mag boobee waral ñéppi safar